ñi ngi ñaanal ko fi lool. waaw mooy lim euh, li nga xamante ni bii jàpp nañ ko ci année 2020 bi ndax ku ne xam na ne Safinatoul Aman seen liggéey at mu nekk dañuy daje ngir leeral ko moom ngeen jàkkaarloo nii liggéey bii nag. li ko fi dajale damay wax ne du ay waxi kese dajewut lii liggéey bi li ko fi dajale du ay waxi kese sëñ Modou moo ànd ak ay ndaw yoo xamante ne dañoo taxaw temm ci ndigalal sëñ Muntaxa rawatine nag sëñ Muntaxa bi mu yeesalee liggéey bi xaatim ko bind ko woo njaboot ak sëñ Tuubaa gi yëpp woo autorité yëpp keroog sax ku ne xam na ne njiitu réew mi teew na ñoom ñëpp ñu wóoruwaat Safinatoul Aman yeesalaat liggéey bi nga xamante ni moom lañ doon def ci dëkk bu sell bi te tàmbale waru ko woon ca jamono sëñ Saliou en 1997 di ko sëñ Mountakha yaatalee nag la sëñ Modou Lo waat ay jumtukaayam ba moo waral tey ñu tabax kër gi. liggéey bi nag niñ koy liggéeyee ba tax ñu jàpp ko dana am leeral buñ ci leeral waaye dañ koo bëgg lim ba pare rek leeral. kàddu yi nga xamante ne bii sëñ bi sant nañu ko ñu yëkkati ko ak niñ def ba ba teg lii loxo la ca njëkk mooy euh, safinatul aman saa bu ñu yëgee ne am na loo xamante ne bi war nañ koo bale ci dëkk bi war a am na loo xam ne war nañ koo dindi ci dëkk bi fa saasa rek bu ko sëñ Modou Lo yëgee am na ñoo xamante ne bii ñoom lay woo fa saasa ñu dem dox loolu niñ koy doxee tamit nenn rek la sëriñ bi lépp loo xamante ne bii mi ngi koy santaane ci ñi ànd ak moom ci di ko di ko liggéeyal sëñ Modou Lo danaan la ma gënal ci liggéey bi day na ca ab yar jiitu ak i teggin képp koo xamante ni bi dégg ngeen ko mu jotee safinatul aman xam leen ne kooka moom amul ndimbal ndax la sëñ bay diglee loo mën a def ci àdduna bi ak euh, euh, ndigal loo mën a xëtt lum mu rëy rëy rëy sëñ bi dane na ngeen wax ak moom ci ay teggin mhm. ba dimbale ko ba loola du ko defeti bu féeteerloo ngeen di door a jàmmaar la moom kon lii li tax ñu nangu ko mu baree nii te déggu leen ci kuñ ci rey déggu leen ci kuñ ci jam déggu leen ci ñu ne Safinatoul amal def na nangam teggin yu ndaw yii di jëfandikoo ak taalibe yi sëñ Tuubaa yi moo tax ñu mën a nangu lii lépp te déggu leen benn fitna bu Safinatoul Aman masa def loolee nag ni nga koy defee danaa ci ñëw waaye football lu sëriñ bi tere la ci dëkk bi sëñ Mountakha moo tax liñ jàpp ci ay balo toll na ci 2641 ballon jàpp nañ jàpp nañ ci ay kànnaar yoo xamante ni ay sëriñ tariyaax ñoo ko doon jëfandikoo di di di takk ay jigéen ñaari junniy balo ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak benn ay kànnaar tamit jàpp nañ ci juróom ñeent fukk ak ñett 93 kànnaar yoo xam ne ci sëriñi tariyaax lañ ko jàppee ndax loolu tamit bu ñu fàtte ne sëñ Muntaxa kayit bi mu xaatimoon waxoon na ñi nga xamante ni bi ay sëriñi njabar lañ nañ jënd dëkk bi ndax dëkk bi du dëkkam njabar looloo tax ñu jàpp ci loolu col lu mel ni bodi ak i rob yoo xamante ni bii euh, ñi koy sol tamit nañ koy sole dafa dëpp wuute war mooy dëkk bi jàpp nañ ci 2255 ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay pièces pantalon moom jàppuñ ci dara kon mel na ni loolu tamit tawfeex la jigéen ñi moom bàyyi nañ sol pantalon tam-tam ay ndënd ji ngeen yi ngeen jàkkaar lool mel na ni jàpp nañ ci cinquante cinq juróom fukki ndënd ak juróom ndax buñ fàtte ne sëñ bi daa aaye tëgg ci dëkk bi képp kuy tëgg amoo ci ndigal ak koo mën a doon ak foo mën a làqatoo tamit amoo ci ndigal ndax dañ koo tere ci dëkk bi kornetu cigarette jàpp nañ ci 3164 ñetti junniy corneti cigarette ak téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent jàpp nañ ko pétin jàpp nañ ci 71 pétin mooy li xale yi sol di daw di këf alali jaamur yi ak portable jaamur yi jàpp nañ ci 71 juróom ñaar fukk ak benn risla jàpp nañ ci 572 juróomi téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom euh, jàpp nañ ci ay lido lido tamit jàpp nañ ci 35 euh, birket jàpp nañ ci cinquante mannequin yi jàpp nañ ci 169 produit yi nga xamante ni bii mooy wàllu xeesal yeeg yooyu ni demee te sëriñ bi tere ko ci dëkk bi tamit jàpp nañ ci 1704 pièces ma junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent ay sëriñu tariyaax yëm ni ma ko waxee woon léegi ñoom lim biñ ci jàpp toll na ci 18 fukk ak juróom-ñett ñi nga xamante ni bii tamit dañuy dessin ne yoo xamante ni bi dëppoowut ak wormaay dëkk bi di desin ay ak yooyu ñoom jàpp nañ ci 24 di ñaar fukk ak ñeent velo jàpp nañ ci juróom benn salon de coiffure jàpp nañ ci 4 ñeent chambre indien jàpp nañ ci fukk ak ñett ay moto tamit jàpp nañ ci moto yi nañ xam ne sëñ bi daa tere góor guy supporté jigéen jàpp nañ ci vingt cinq moto sàngara tamit jàpp nañ ci vingt quatre butéel sàngara ñu xam ne tamit jigéen ñi nga xamante ne léeg leen ñu sollu gàtt wala ñu def naka sudul jàpp nañ ci deux mille deux cent cinquante jigéen ñoo xam ne nii interpellé na leen loolu nag am na leeral buñ bu ci mat a buñ ci mat a def ndax ñooñu biñ leen jàppee deux cent cinquante six lañ ci amande. kàddu yi bàyyi ko yàgg ci lool ndax li sëriñ moom loolu seere léegi loolu rek moo tax ndax ku ne xam na ne na ndax mën nañ ci yàlla soxal te mbooloo mi siyaare day yi bari na lool waaye keroog sëriñ moom loolu ñëwee ci moom ñor nañu liggéey bi àgg na te lépp sëriñ bi àndoon moom sëriñ bi da ko wax lépp fii ma toog dara bàyyi moo fi koy liggéey sëriñ bi kon nag lu mu doon teg teg teg ci puus puus ma ci doxi sax bu teel na liggéey sëriñ bi nga ko jëm kon loolu mooy ni mu bëri defee kon sëriñ boobu yaa ko day sa sa fii na commande bi nga xam ne yaa ko jiite sëriñ bi nee na ñu ngi lay nuyu sant bi di gërëm ci sa yitte ak sa taxawaay ndax bokk nga bokk ci sëriñ bi xam nga ne tawfeexee sëriñ bi la si suñu borom waaye nag doy la woo ko da nga xam ne sëriñ Tuubaa ci liggéeyal ko ci lañuy jëriñ moo tax nag nga futtiku laxasaayu bàyyi sa yitte li moo fel toog ci dëkku sëriñ Tuubaa bi di ko liggéeyal ci lii nga xam ne mooy war ma dëkk bi ndax ku xam ne ne sëriñ mboolem li mu bëggoon rek ñaan na ko ci dëkk bi Touba te lépp suñu borom may na ko waaye nag la mu waxoon ci jumaa ji rek mooy liy am ci mbiram ko liggéey de malaayika yi dinañ wàcc li fi Sëriñ Touba ñaanoon ci ñaan suñu borom mu sol ci dëkk bi ba wax ne wa maskani salli min al fujjaari wa mun ala al ahli bi maa in jaari loolu nag sëriñ bi nee na yow yaa am tawféexi Sëriñ Touba liggéeyoo ci liggéey bu la ci liggéey ba ñaanal ñi lépp ci sa loxo sottee kon war ngaa sant yàlla bu baax te sant Sëriñ Tuubaa te gën a fetli sa laxasaay te waye liggéey bi te xam ne day yëngi day yëngi ci tawfiq day yëngi ngërëmu day yëngi ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa kon nag Sëriñ Tuubaa bi nga xam moom nga liggéey mi ngi ci sa kanam ndax xam na ne bëggoo ci ku la tagg ragaloo ci ku la xas seere Sëriñ Tuubaa képp nga def ak seere ko moom ñu fi def moom li fi nekk nag làq nga ci garabam nee na foo geesoo danga ko gis sa kanam nekk sa ginnaaw di ko ànd ak yow bu faw ci lépp loo xam ne lu mu ci war a taxaw la wala lépp loo xam ne na ko te war koo ànd ak yow danga ko rek neen daal bul am dara looy tiit bul am dara looy jaaxle lépp loo xam ne war na ko def dana ko def ànd ko yow xaw ndax xam na ni dana jiitoo ko ci liggéeyu Serigne Touba ndax dëkk bi kat Serigne Touba da ko fàggul boppam ñaanoon ñu bëgg mu mel ni wax wax wax wax wax nam bëgg lu Touba mel ni ak la bëgg musal ko ci kon nag diggam yàlla def na nga jub laxa saayu ànd ko mbooloo ñu ci yitte ak posture ak taxawaay dëdd lépp ngir jëm ci na ngeen xam ne Serigne Touba moo leen ci def kon ñu jeexal foofu kaddu yi di la sant di la gërëm di la ñaan ak ñi ko àndal ñëpp. salaamaaleykum